rive boobee am na ku si ñàkk bakkanama yéen kaay gi na jamono ji nga xamante ni sénégalais yu bare bari seen xel ci mbiruma jàngoroy coronavirus ji si la daal di nekk bu vingt heures jotee ñëpp tëri ak couvre-feu bi jamono jooje nag ay doomu boroom xaalis ndekete yoo ñoom daal ñoo ngi gundaandaat yéen kaay gi di réew mi ko dajee mu xëy di ñu xamal lan ñu kaca faatu nag moom nag ma ngi wuyoo si turu Iba Thiam moo fa ñàkk bakkanama guddik àjjuma jàpp samedi journal bi nee na en tout cas daal li nga xamante ni moom la ñuy njortu mooy nag dafa jël doroog bu bëri maanaam drogue bu ëpp drogue boo xamante ne la su ëppee nag dalay lay tàggaleeg sa sago di la wàcc loo yéen kaay gi ne deret sax la doon wàccu waaye nag la ca doy waar moom Iba Thiam moomu ñamu àndaloon nag dañoo daw daal di ko fay mujjee bàyyi journal bi nee na Amar mi nga xamante ni doomu Ahmed Amar mi faatu ci weer yi ñu génn moom cala la bokk na sax nee nañ ci ñi nga xam ne ñoo organisé woon mbir mi. nii moom da nañu koy teg loxo ak benn serveur bu nekk ci benn hôtel waaye tamit ñi nga xamante ni ñoo leen doon jox dorog boobu ñooñu jamono ji ñoo ngi leen di wër waaye nag appartement bi nga xamante ni fa mbir ma xewee Rougui Diaw mi nga xamante ni doomu baaba Diaw bu itog la moom moom bul ba journal bi nee na moom Rougui Diaw moomee sax daat nañu koy auditionné maanaam daat nañu koy déglu ba ñu ko dégloo ba pare daat nañu koy bàyyi libération yéene kaay nee na doomu Baba Diaw boobu nag moom fekkee wuutoon sax mbir ma en tout la mooma daal di koy jox nag benn agence immobilière maanaam ngir mu daal di ko la naam sax am na ca nag ak wet goo xamante ni maanaam dafay jaaya mbirum yére ay prêt à porter yéen a kaay gii di Vox Populi mu xëy di ñu xamal nañu en tout cas li am ba sal te ñun ñu man ko cee wax mooy soirée privée boobu alcool ba ak drogue ba doon na fa jaaba jonge yéen a kaay la Tribune ne maa la ko wax en tout cas daal li tax Iba Thiam daa di faatu mu li sooke mbir mi daal mën nañoo jàpp ne drogue la alcool bi nga xamante ni daal maanaam moo fa doon jaaba jonge yéen kay gii di libération mu ñu xamal laan ñu sax mbir mi nag ba muy dog di xew enquête bi ñi nga xamante ni ñooy waa gendarmerie bu Ngor ñoom lañ ko na waaye nag brigade de recherche bu fédère bu jamono ji moo ko daal di yore en tout cas li am ba des avocat yu bare bare bare jamono ji nag maanaam commencé nañ leen a jël ca mbir ma ku ci mel ni maître Ciré Clédor Ly Bamba Cissé sax jamono ji moom tim soobu na ca mbir en tout cas li am ba des mbir mi daal ay doomu booroom xaalis la yéen kaay gi di Les Échos mu ñu xamal lan ñu Dame Amara moom daan nañu kay teg loxo ak ku ñuy wax Njoogu Base la ak ku ñu wax faatima ak benn tubaaba yéen kaay gi de mu ñu xamal lan ñu am na benn doomu Sayer Seck boo xamante ni sax moom daan nañu kay teg loxo am na keneen ku ñu wax luuti ba moom tim daan nañu kay jàpp yéen kaay gi nag xëy di samp ab laaj ne couvre-feu couvre-feu bi nga xamante ni moom la ñu amal ci réew mi xanaa nag dafa am ñoo xamante ni maanaam ñoom dañoo am sañ-sañ di des nag amuñu ko loole nag ku mu mu am nday ak ku mu mu amul nday moom ngay am foofu yéen kay kii di réew mi quotidien moom daa di xëy bàyyi mbir moomee daa di wax nag ci li nga xam ne mooy vaccin yi nga xam ne dañuy wax ne dañu koy indi ci déndu Afrique ngir daa di koy testé loole nag docteur Amadou Alpha Sall bu institut Pasteur nee nag loolu Sénégal wala africain yi ñoom seen bopp dañu ko xalaatul sax daa nay wax nag lu jëm ci mbirum confinement ak réalité yi ak dundinu askan wi loolee ci boppam mënut a nekk te sax xalaatuñu ko njiitu mi di président Macky Sall moom nag daat nay wax ne daal dina nag jàppale askan wi ci lu toll ci juróom benn fukk ak juróom ñeent ci ay milliards yoo xam ne maanaam ak dund koy daal di jëndee wax na tamit courant bi ak lu jëm ci wàllum ndox meek entreprise yi ak wàllum tourisme ak lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram gi ba si waa diaspora bi njiitu réew mi nag daat nay jéngu yéene kaay groupe promo consulting bi ak yéene kaay gii di Sud Quotidien ñoo xëy di ñu ko xamala yéene kaay gii di enquête mu xëy di ñu xamal lan ñu en tout cas yooyu bëri na ñoo xamante ni naqarlu nañ ko ci déndu Afrique Abdoulaye Diouf Sarr moom nag la mu xamle nee na nag Sénégal dafa xalaatul sax maanaam ñu jël ay vaccin di ko fi daal di testé laas yéene kaay mu daal di xëy ba tey wax ci jàngoroy coronavirus ji nee na en tout cas attention cas yi ma ngi waaj a bëri de yéene kaay gi du source am mu xëy yóbbu ñu diwaanu Touba mu ñu xamal la ñu dafa am lu toll ci juróom-benn ci ay commerçant yoo xam ne ñoom nag ca marché Ocass dañu leen a tëjloo woon seeni magasin ñu daal di lànk jamono ji nag daat nañ leen di teg lu toll ci fukk ak benn ci ay chauffeur yoo xamante ni daat nañ leen di defee récupérer ndax chauffeur yooyu ñoom ay allo dakaar la ñu yore woon bëgg a jóge Touba daal di ñëw dakaar maanaam ci fajar cuuy ji ci la ñu leen daal di teg loxo te nag soo moytuwulee daal procureur nag dina am liggéey bu ko doy sëkk ndax médecin yi nga xam ne ñoo nekk ci région bu Diourbel ñoom nag nee nañu jàngoroy coronavirus ji daal bu ñu waxul ci allo Dakar yi ñoom ñoo koy gën a nag dugalaat ci région bi yéen kaay gii di libération mu ñu xamal na ñu dafa nag am benn ASP boo xam ne moom dafa bokkoon ci mafia bu doy waar boo xam ne ñoom dañu doon jaay ay autorisation maanaam ca diwaanu cees autorisation yooyu nag ay borom oto lañ ko doon jox bu ko defee ñooñu di mën a circuler heure bu mu leen neexee ASP boobu nag daal nañu koy teg loxo yéen a kaay gii di réew mi quotidien moom mu xëy nag mel ni luy sar xolle daal wax ne Diop Isaac daal nay am xew ndax jay Dieynaba mi nga xamante ni moom lañ doon wax ne moo ko daal di ëmbal ba moome nag daal nay am dooma maanaam góor la am jay na Dieynaba moome nag dafa bàyyi ba 4 avril mu daal di am doom fête de l'indépendance réew mi quotidien moo xëy di nee na daal dafa am ñoo xamante ni dañu doon fësal ay xibaar wax ne nag Diop ISEG moom jamono ji pare na ngir négocier ak nag njabootuk ba waaye nag loolee ay avocat daat nañu koy weddi yéen kaay gii nga xamante nag moom mooy stade xëy nag ci Koulibaly mi nga xamante nag moom ab défenseur la boo xam ne ràññee nañ ko lool ci Sénégal waaye nag daat nañ kay ràññee lool ci fi nga xam ne mooy Naples ca Italie journal bi nag nee na lu toll ci ñeen fukk ak ñaar ci ay sélection yoo xamante ne bali daat na koy am waaye nag dem na ba di ko méngale ab miir boo xamante ni daal moo gën a dëgër ak weñ fuuf kulibali